recevoir ministre euh, Serigne Mbaye Thiam ministre de de de l'eau et de l' de l' ak waa SONES yëpp yi mu àndal ak waa banque mondiale ci turu maire Thiès yi ci turu élu Thiès yi ci turu Fandène ci turu waa Thiès yëpp dañ leen di dalal di mbég ci li nga xam ne ni moom la ñu liggéey mooy parce que mënuñu wax émergence wala mënuñu wax liggéey wala nañu jaabu yàlla sa amul ndox dinaa leen nettali du wax tuuti ndox waxuma nit rek même mala yi man ci mala yi laay liggéey mës naa dem ci forage boo xam ne dafa paan deux jours jur gi naanuñu jur gi dañoo ñëw ba ci jub ndox mi tëgg biñ ko dépanné ñun ñi nga xam ne ñu ngi taxaw xamuñu dépanné na ko jur gi tëdd jóg taxaw ñu ni kon dépanné nañ ko parce que dañoo dégg ndox mi daw ci suuf pour ñu ñëw naan si muy ndox day loo xam ne nii képp kuy noyyi da nga ko soxla maa ngi leen gërëm di leen merci bien. ma bëgg a wax ci wolof mooy kontaan naa parce que fekkee naa démb ba ñuy dem ci forage yi ñu leen di tabax ñu ñëw fii fekk lii daa di pare. mais li ñu gën a kontaan mooy dañ waxoon ne ko directeur général de SONES na branchement am na village yi nga xam ne moom la tuyau di traversé ñu am ay ndox mu jël engagement ne dina ko def ma toog fii tey gis ci reportage bi villageois yi ne kontaan nañu parce que la digoon defal nañu ko ndaxte nag bu ñu xoolee la dogee woon Kames 3 traversé ba ñëw dakaar village yi nga xam ne ñoo nekkoon ci wet yi daan na ñëw di ya ñaxtu ne Ndakaaroo ngi am ndox ñu ngi euh, traversé suñ suuf si te ñun connecté wuñu waaye nag loolu dalul waa Tassette kon ñu ngi ci kontaan mais nag di encourager gannaaw bu ñu félicité que ministre bi am na ay perspectives yoo xam ne moo ñuy rassurer. mooy que surface stockable yi nga xam ne moo fi nekk ñu multiplier ko à travers le Sénégal ba nga xam ne en cas de rupture bu amee ndog ndog am ñaanuñu ko yàlla ñu mën a toog tranquille tey am sunu ndox donc ñu ngi leen di encourager ngeen ci perspective yi ngeen jël ko en compte développer surface stockable yi ba nga xam ne bu ndox manqué fa nga toll itam boo ubbee sa robinet di fekk ndox maa leen di gërëm di leen sant. Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le maire de Thiès, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Messieurs les directeur nationaux, directeurs généraux et chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants de partenaires au développement, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour la cérémonie d'inauguration des réservoirs de Thiès Sud dont les travaux ont été financés par la Banque mondiale à travers le projet eau et assainissement en milieu urbain. Comme vous le savez, l'objectif principal de ces financements était d'améliorer le désert en eau dans les zones déficitaires identifiées en 2014 dans la région de Dakar et sur la Petite Côte, tout en renforçant l'accès à des services améliorés d'assainissement. Le financement de projets par Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars, soit plus de 58 milliards de francs CFA, va bénéficier globalement 820 000 personnes situées dans les zones du projet. Ils viennent s'ajouter aux programmes successifs de près de 510 millions de dollars mis en œuvre avec l'appui constant de la Banque mondiale depuis 1996 qui ont permis au Sénégal d'atteindre des résultats dans le domaine de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement et constitue un modèle dans ce secteur Afrique du Sud de Le Sénégal a presque atteint le désert universel en eau potable et s'ahise au premier rang des de pays africains en matière, en matière d'accès à l'eau par branchement domiciliaire au réseau. Au milieu rural, le Sénégal atteint en 2018 un taux de désert en eau de 95%. Le sous-secteur de l'assainissement se situait largement au-dessous de la moyenne africaine avec un taux d'accès global en services améliorés de 72% euh, et la politique sectorielle mise en œuvre pressage de l'atteinte de développement durable fixés pour les prochaines décennies. Autres ces résultats palpables en matière de désert, le secteur bénéficie d'un cadre institutionnel approprié pour la pérennisation de la qualité du service et le financement durable des investissements. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, les bons résultats atteints par le Sénégal dans le secteur de l'eau et de l'assainissement sont de fruit d'un engagement politique fort du gouvernement et d'un accompagnement soutenu de partenaires techniques et financiers particulièrement la Banque mondiale, avec laquelle vous avez toujours su maintenir un dialogue constructif, fructueux et transparent. Nous continuerons donc à être à vos côtés pour relever le nombre de défis qui restent à surmonter, notamment la poursuite de réformes dans le secteur de l'assainissement urbain pour améliorer l'efficacité des services, la réduction de fosses existants entre le secteur hydrologique et de l'assainissement. Dans le même esprit que nous animons depuis plus de deux décennies, soyez assurés, Monsieur le ministre, de mon engagement personnel et de celui de mon équipe à continuer à vous accompagner vers la réalisation des objectifs de développement durable et le renforcement de la sécurité de l'eau au bénéfice des populations sénégalaises. Je vous remercie de votre amiable attention. di fi daloo ñaari mànd ndox yu rëy rëy yoo xam ne yii ñoom ñaar ñëpp suñ leen boolee ñaar fukki millions litres la ñu mën a def ci biir li tax ñu def ñaari mànd yooyu nag fii mooy dafa am fukki forage yoo xam ne dañ koo tabax fële ci ci ci Tassette boole ci station de pompage ak ñaar fukki kilomètre ak benn ay tuyaux yu jëlee ndox mi di ko indi fii projet bi donc dafa bokk ci projet bi nga xam ne moom la ñu lënkaloo ak Banque mondiale def ko muy li ñuy wax li ñu liggéey ci taset ñu indi fi donc ndox moomu fii waaye tamit fii ñu ko def dafa nekk sëlëbe yoon boo xam ne bii ndox mi jóge taset daf fi tase ak ndox bi nga xam ne ëllëg mooy jóge ci usine bu bees bi ñuy tabax muy Kër Momar Sarr 3 li tax ñu def ko nag mooy que pour am sécurité ci ndox mi nga xam ne moom la ñu yóbbu Dakar mi ñuy indi Thiès ak dëkk yi ko wër waaye dañ ko def tamit ci fi nga xam ne fa la toll soo ko seetee téeméeri mètre ak ñaar fukk la sutee Dakar sutee ñaar fukki mètre réservoir yi nga xam ne moom lañ njëkk a def Thiès muy fële ci boori école polytechnique loolu yëpp dafay may ëllëg su fekkee ne ndox manqué na dana am au moins rôle boo xam ne bii réservoir yi danañ ko jouer waaye jëluñu ndox mi yëpp rek ne dañ koy yóbbu dakaar parce que dañoo seetlu ni fële ci Tassette am na ndox mu bari mu fay ball ci suuf ndox moomu bi ñu ko jëlee xalaat nañu tamit dëkk yi nga xam ne ñoo ko wër ma wax ci benn mooy Palem Coyaan mooy Biri Biraan ak yeneen dëkk ak euh, Njas Palam loolu yëpp def nañ fa ay borne waxtaan nañu tamit wax nañu tamit OFOR ak SONES ñu waxtaan ci yeneen dëkk yoo xam ne yi ñoo nekk yooyu nga xam ne dëkk yu mag lañu nga xam ne ñoom ci ndoxu OFOR bi la ñuy nekk mooy hydraulique rural ñu seet nañ leen leen di yóbboo léegi ci hydraulique urbaine muy sànge muy Jaxaar Mbay muy Kayre Jandeer ak yeneen dëkk yoo xam ne yii ñi ngi wax daal pour ñu liggéey ci pour seet na leen di yóbboo ndox moomu kon boot li nga xam ne moom laa mën a wax mooy lii suñ ko defee président Macky Sall lim ci jublu ak gouvernement bi mooy duñu xaar ba soxla bi taxaw ñu koy defar lii investissement anticipation moom la ñu def fii nii pour alimentation en eau Dakar Thiès ak dëkk yi nga xam ne moom moo leen wër wala jegeñ leen duñ ci taxaw nag ndaxte ci plan bi gis nañ ne prévoir nañ fi yeneen ñaari réservoir yoo xam ne yi ëllëg mën nañ ko cee yokk def ko ci plan bi nga xam ne moom la ñu def tey jii liggéey bi nag lu mat fukki milliards ak juróom-ñett suñu boolee taxi yeeg yëpp moom moo ko liggéey fukki milliards ak juróom-ñett yooyu yemul ci ñaari réservoir yi yëpp dafa ëmb tamit li nga xam ne moom laa wax mooy fukki forage yi station de pompage bi ak conduite yi nga xam ne moom la ñu def ki nga xam ne nag moo ñu ci jàppale muy bor ci alal biñ ko defaxee mooy banque mondiale kon bor ci turu gouvernement bi dina gërëm banque mondiale dinaa gërëm tamit euh, SONES seen ingénieurs yi seen techniciens yi gërëm entreprise yi nga xam ne yépp ñoom ñoo liggéey ci projet bi muy liggéey boo xam ne bii liggéey bu mucc ayib la ndaxte lii nga xam ne moom lañ def ci réservoir yi gën gaa néew lu mat juróom fukki at seen durée de vie dana ko mat maa ngi leen di gërëm di leen sant